ay set Tall Sall fekki Macky sàll yéenekaay yi xëyee ko tey ci observateur moom soxna si di wax li waral mu dem ca président Sall du ay sëriñ yu weñ loxo mu ne wala benn pression waaye ngëm-ngëm politique moo ko lal fekk na boobee gis-gisam daal di dëppoo ak bu base bi ci ne Macky Sall mooy yoon wi baax ngir Sénégal servir la Sénégal kon moo ko waral te mu ne candidat Macky sàll mi mu toggal déglu ko bu baax njort na ne suñu ko joxee mandat beneen ay jéego yu wér dina ko def ngir askan wi waaye rawatina jéego ngir dal ak jàmm ci penc mi le quotidien xëy na ay Tall Sall ma ngay liggéeyal léegi Sall moom soxna si ci yéenekaay bi naan ca na mu doxalee fa mu ko wéer mooy ni yëf yi doxee fii yëf yi toll c'est la réalité qui commande les actions les échos ne Aïssata Tall Sall osé na ko dal di dem mu ne ca moom soxna si lépp lu muy def nag ak mat la cay àndal du lu nu koy defloo bu dee lu soxal Idrissa Seck ak Ousmane Sonko jokkoo na ak ñoom mu ne waaye junul lu bari Vox Populi ne Macky legetam mujj na nag fees ca ndax ginnaaw Aïssata Tall Sall Marcel Sall nekkoon député PDS foofe fekki na ko moom Macky Sall ci ndimbalal Cheikh Oumar Anne njiital APR Macky Sall yamu ca ndax observateur nee na bi suuf seddee 3 heures du matin ci leen di juux kër soxna Aïda Mbodj borom mouvement ànd saxal liggéey mu mel ni kon foofe it léegi xibaar jibe fa ci diwaanu Saloum nag yëf yi mokkagul rumbux ngir Macky Sall alaaji Malick Gueye bu lan mbenge ci direct info di ko artu te naan ko saalum tàbbeegul ci yoxo yi Benno Bokk Yaakaar ndax mu ne Saloum ca loxo yi doomam ya ko jiite fa la feebaree Wade ak PDS ñoo fay doon ñi falaka folli buur moom Abdoulaye Wade nag ñibbi na ca Versailles ginnaaw ca Doha observateur ne Mamadou Diop Decroix Oumar Sarr ak Pape Diop wolu na leen foofe ci ndaje tey ca Versailles géopolitique bi nag Macky Sall rek doonu fa mbër mi fay daagu ndax Vox Populi gis na ni kam koy séqal ci lu naturel muy doon adversaire benn mooy Idrissa Seck ci yéenekaay bi ka toftalu sax ci moom ci parti réew mi moom Idrissa Seck di Déthié Fall jàpp na ne Idrissa rek moo mën a delloo ngoram Sénégal Dakar ren moom mooy sànnib tàccoo moom Idrissa Seck Idrissa Seck ñu fekk ko ci les échos mu demoon démb ca Rëbës seeti Khalifa Ababacar Sall mu ne bis bu faloo président la muy def mooy dem ca Rëbës jëli Khalifa Sall maître Madické Niang ma fa demoon nit noonee la waxee ci yéenekaay bi mu ne Khalifa Sall ku ñu war a libéré la ca moom su faloo dina bokk ci yitteemu njëkk dogal yu muy njëkk a jël ca Khalifa Sall Bougane Gueye Dany it ma nga fa noonu Ousmane Sonko a yéene kaay bi ne loolee moo waral Aïssata Tall Sall daw baleen fa ose ji làqu ci loxoy Macky Sall yéene kaay bi di las gis ne gaañaa ngay wëndeelu ca wërngalub xalifa Sall ngir fexe gañe tànneefam firnde bi di kàdduy maître Madické Niang ci yéene bi yuy wax ne électorat xalifa Sall di ñettaa moo woteel xalifa Sall mën na leen a jàppale ci gañe wote yi ndem si yàlla Mamadou Diop mi faatu woon ci manifeste politique ca Colobane alxamis ji lay am juróom-ñaar ci at ay xaritam ay soppeem nasoon risque les échos ne préfet Ndakaaru nag lankal na leen lu ni mel delloo leen seen bataaxal bu yëgle ci lu mu leeralul li waral tere gi ñu jeexale sport gi ak journal record kaay bi xëy fësal fanweer yi mu jàpp ne ñooy ñiy def football bu Sénégal Aliou Cissé Ngëca Sadio Mané Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye ministre Mactar Ba président Augustin Senghor lu jëm ci personnalité yi gën a ràññiku ci sport ci at mi nag Sud Quotidien moom xëy ak waa sport 221 ñi doon màggal ministre Mactar Ba ak Mamadou Diagne